ko di dóor maire bi moo lay jéem a tegal ay genre bagage yi nga koy liggéey bagage yu ñàkk ay tuile quoi mais yii xawi na mais xoolal yoo xamante ne ko sax bëgg sa maire bi ta bëgg nga découragé quoi sa dund mais pour lan sa maire moo gënoon baax ci maire yi non daf ma doon gis di ma conseillé bàyyi may xam nga di nekk quoi yow yaay taaw quoi. man naa eh, deuxième un non ak deux ñooñu nii yooyu yëpp xajul suñu diggante quoi non bagages yooyu noonu dañuy ah waaw. waaw ah, bëgg nga dégg. diw bul fàtte ni kër gi ñoo fi taw. war eh, un bul fàttali suñu papa dafa dem bitim réew daani dooleem ndax ñun ñoo ci ay góor man ak kër gi tey bu ñu ko doon jaay yàlla na yéex sama papa génn àdduna ñu koy miraas man ak yow ñoo ci ëpp te Ibou bul fàtte ni deret bii daw ci yow mooy daw ci man. pire pire. ak tàppook aw. pire. Ibou lii bu ma ko defaree dama kaa war a defar bu ma ko defar dama kaa war a. xam nga la laa bëgg lii ngay def nii. mabuk na bay. ban ndax sa grand butéel bi nga jël top ko chaque jour dama japp ni yaangi sam sa bopp Da nak ana lan mo gëna ñaw. nga gën ci mbedd mi dox ci tërëf ni la xol doom bi jaar non ko nga grand côté boobu du sax man quoi te bo gisé mo koy jël du ma ko bëgg quoi sama copain moo ma ci duggal. boy ili ili sar ili di ili moo ma ci duggal quoi mais man duma ko def boisson lay naan kaya na ako. No, kung barat sir no be kwa boy, tingi mau jauh. Yalla nañ japp. Gabo po, narfal, gabo po. Te nag nañu boole suñu xol yi lépp doon benn. Ndax kër gi suñu kër la bu ya, loolu laa amoon ci lu ma laaj bu fekkente ne amel naa la nga baal ma non maa leen baalu grand yéen maa baalu quoi mais man ñi ma dugal ci lii ñoo ma war a baalu idi ak Lamine Diop ñoo ma war a baalu de ñoo ma ci dugal quoi mais dara bul dóor quoi bul dóor dóor kan dem quoi après man dinaa ñëw quoi kan dem non grand quoi mère bi muy ay bagage quoi non kan dem grand yi waaye affaire soirée ay mag yéen mais yow da ngeen di def ni mag sama référence mooy Papa Bokum naa chaque jour ak façon bi ñuy génne quoi yaa ngi si kii man ci seen buñ kër gi may toog sax xoolal am fi bàyyi toog di toog buñ kër yi ñu ngi dëgg la ah dañ koy ndax Emma Emma dof la lu nekk léegi lu nekk ci bopp rek lay bëgg a nekk ah def na fu nit ah waaw waaw na saa dana ko dox. ah jërëjëf moom jàll la. man Ami laa tudd. Ami mais yow Ami sa tur bi neex naa ah. mbay mi dinaa ko bàyyi parce que dama ko bëgg a def imam mu nekk comme man mais mënu koo doon sa bëgg jigéen. da nga mën a def mbay imam mu mënoo ko moom li mu bëgg ci deretam la. man la Ndiakhous. mais nit ñëpp xamee ma ci mbay teraanga quoi. ndaje. loolu xam nga yaa ngi mel ni ku yàlla roccee àjjana sànni la biir Dakar. nga doon benn jigéen. merci. dama xamal la leen quartier bi. benn jigéen rek moo fi am mu yew merci xolal gis nga kon nag dinañ bàyyante wala ñu continuer mu bàyyi jigéen ñi comme ne dañ ko ba boo xam ne moom jigéen ñi boo ko teree ya, tere jigéen ñi yow yaay sonn yow mais nag dafa am lu am uh-huh. gis nga yàlla uh-huh. dafa am lu def mooy lan yàlla dafa def ci biiri uh-huh. ma gis la bëgg la <laughs> te yàlla loolu la def mais loolu la def lim def neex na de oui mais yàlla dafa mel ñaar la def laaj ma bi yàlla lu defati. yàlla dafa def. Mhm. ma gis la rek bañ la. ah bon. bu ma ko waxati nag. ngay mel ni nak sa veeru mi kii nga may saf du bi wa mais fils. oui c'est la mbaxal daal. oui c'est la mbaxal daal. Anta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afanda. Tabar. Tabar. Tabar. Tabar. Tabar. Merci. Tabar. Tabar. Eh. Nanti. Nanti jam. Nanti jam. Insya Allah. Nyom fa. Nanti jam. Tabar. Nanti jam. Nyom fa. Nanti jam. Wah, nanti jam. Beda nyom. Beda lagi. Nanti jadi kalau dirangman. Amul, amul, amul. Wah, ada. Affaire ulama mom sax mo yëkëti won. Hmm. waaw ndax wax dëgg yàlla yow umpale woo sama diggante gama donc ni nga xamee yàggul sama xarit la sama doomu ndey te lépp lu ko metti dina ma metti lépp lu mu yëg ci yaramam it loolu laay sentir ndax sama xarit la gis naa ci moom loo xam ne nii musuma kaa gis ci moom muy mbëggeel boo xam ne nii dafa dëgg ndax rama du waxantu te du defantu bëgg na la nag fa mbëggeel commencé commencé mais amul fu mu yem bëgg na la trop chaque jour say wax lay wax nangootul lekk nangootul naan mën naa ni liggéeyam sax mu ngi bëgg a yàqu ndax yow ma dem nag ba xam ni sama xarit am na problème ma jug dox loolu hmm. li may dox nii sax mën naa ne rama yóbbu ko xamul ni sax fii laa jëm si mais man maay dox loolu ngir tànk xarit ak xarit ma bëgg nag nga jàppale ko ndax jamono ji ñu jigéen gis la ba bëggal boppam ba wax la ko jafe na tool la ma bëgg naa nga jàppale ñu garab sonn na lekkatu nelaw dëgg la dox nga tànk xarit sax ndax xar yi lii rek la mënal morom waaye nag daf fekk ni naa cee waxtaan ak Rama ba li ma ko wax sax gaa bëgg noonu ko mu wax mais dinaa la ko wax Rama jigéen la dafay xolam di bëgg waaye tamit mbañu ma ko waaye ci situation yu ma fekk la bu ma sañoon daal mu jàppee ma ko mbagam rek ma jàppee ko mbagam yaakaar naa daal moo ëpp njariñ dëgg la dégg naa say wax dafa fekk ni tamit nit mënoo dugg ci xolam ba mu jeex ndax xaw ma li ci yow te ni ngay waxee nii ak ni ma gisee sa kanam gi li ngay wax lu dëgg la ci yow waaye man tamit bu ma sañoon nga bàyyi xel ci li ma la wax bu baax ni rama bëgg na la naa man awma toogaay la ñëw la waaye euh, balaa ma la wax dëgg maa la la koy waaye doonu loo xam te lu ma gënal la ndax kër gi nga ñëw mm. dama fi nekk sama tànk te dépp ma nekk ba léegi jigéen mosuma fee seet si nekkoon ak sama papa tamit wax dëgg yàlla bëgg naa daal bu fekkente ne da nga fiy ñëw da nga ci bunt kër gi mu woo ma xam naa dëgg la amul benn problème. loolu dara am na daara dafa génn kon. waaw dafa génn bëggoon benn. amul benn su ma ñëwatee ni ko bëggee laa koy defee. incha allah li ma la wax nañ ci bàyyi xel de. amul benn maa ngi def merci beaucoup jërëjëf ok nga baal ma gunge waaw amul problème jërëjëf ça va bien ça va bien pourtant temps yii maa ngi romb sa voiture voiture ci autoroute bi. Hmm. waaw maa ngi lay tàllal loxo waaye gisoo ma. bàyyi ma ci xel man bu may dawal gis damay concentré wu de. waaw ah, c'est normal. ana paa bi mi ngi fi. dafa bougé sànq. ah pourtant waxoon naa ko ne dafa fi ñëw sax. Ah. Hmm, mais temps bii xam naa war naa mën lañ mën a waxtaan daal parce que yaa ma taxoon na jóg. Hmm. sa bureau sax. bi. ci biir semaine bi fii man ma nekkul bureau rek maa ngi fii. Hmm, dama sama xel nekk ci yow. donc ma ne woon daal fële ku ma ñëw ñu waxtaan daal dama bëggoon vraiment daal jël la indi kër gi waaw nga nekk sama soxna daal en dëgg la tonton Malick waaye man moment yi nii ma toll sëy mu nekkagul ci sama bopp damaa bëgg a bàyyi ba si kanam mais moment yi nekkul ci sama bopp daal. nekk doo xale doy xaar. waaw la mais ci kanam liggéey ba si kanam mais moment yi yaakaar ne xanaa dama laa mënul yoon. non demee fa noonu. mais xam nga ni bu ma la doo am lenn ndox mën nga ko manqué bu ma la. tonton Malick xanaa doo dégg sëy moo nekkagul ci sama bopp wala lan nga bëgg tonton Demba Ndiaye ñëw na fi ma màrta ko yow nga ñëw xanaa dama lay séemee xoola wax yooyu laa bëggatul ngeen ma koy wax dégg loolu la bëggatuma ngeen ma koy wax. Ah, wallaay wax yow kay jugal dem bala ma laa dàq. ah damay dàqu ko

indil sama soow mi. du ma añe ba léegi naanu ma soow yow tam. damay lijjanti rek mu baax. ah waaw kese. maa ngi ñëw de. da nga yaram ak yow tam. damay yéex mu Dari di tëj gala. soow day gaaw waaye soow mu yéex baaxul. añ naan soow la ñu may jaare. moo tax moom mana? lay defal. waaw. xamante na maa yow. bu rek. wallaay maaleykum salaam aji daa doo nga am nañ aji daa doo naam na nga def la ba dara jot ça va bien na nga def ça va de ça def ah man di nii rek yu nooy yi rek te te te te kii rek bu ma añee daal waa lii de moom lan la nag bu ma añee daal mu indi soo mu jox ma xam nga soo dee nelawaate mm-hmm. janjang laay def nelaw rek kii d'accord chéri kii moo tax mënatuma dem fenn ah? moo tax mënatuma dem moom da ngay waar ak wërëñ ji lii waa lii la ko doon daal <laughs> nga ci de ah. yéen a ko de ma mooy. waaw def nag. sant yàlla naa la. baat na jotul wóor na yàlla namm naa la. sunu namante nag dafa wuute ndax yow sa nam ma yow. <laughs> c'est soo ma gëj a gis rek. waaw maamul ne man nekkuma fi. alhamdulilah. la bariwul. waaye déet waaye ay daal boo ñëwee nii rek. xoolal yow sama xarit nga. yow bu la dara naqare. dama laa gëj yoon yónnee dara. yal na la yàlla yokk waaye yokk xéwal gi ah nga voyagé waaw dama génnoon waaw. ana xale baa ñu gis jàmm baa ja ngay góorgóorlu. xale yi góorgóorlu de. xale yi de jaay pen góorgóorlu wu ñu de lan. xale yi kay mën naa la wax ne ni jaay pen na lañ ma teg. looy wax ni. xale yi day nàmp nañu seen weenu yaay wu sell wa waaye toog xamtu ko. loo yaakaar ci lu bon lu as gor wala bàyyi gannaaw rek xamal na xale yaa ngi koy def ndax seen yaay amoon na diine amoon na lislaam yii woon na baaxoon na man mi nekkoon ak moom ci kër yi xam naa ko mu jiitu ba ma fekk ko fa nijaay benn maa ngi lay wax loo xam ne dama la ko rusoon na wax mooy kii nga xamante ne mooy aw ak aadama lu bon lu loo yaakaar ne doom as gor war na ko feebar rek ñu ngi koy def nijaay ba jàmm bàyyil jooy yi bàyyil jooy yi te nga wax ma yaa nekk ñoom kay wax ma jarul jooy loo wax suba ba ngoon a dëggal ne wax ma rek ndax yaa nekk ak ñoom man mënu maa xam yaa nekk ñoom sa xam nga ne cagal la awa cagal inna kon nijaay lii man mu dalul sama njaboot. may ma ma ko gënal. noppil bul jooy xale yi de ndagam lii nga wax moom la ñu def man mii seen nijaay bett nañ trop ndax ku nekk xam ne man mii seen nijaay bonuma te seen yaay ma gën fuuf seen yaay mën naa la wax ni la wàlliyu la woon ba muy dund. wallaahi mën naa la wax ni la jamono bii ku ku ku fëgg àjjana fekk fa seen yaay. kon bu ñu defee lii nga wax nii jéggi nañu sart man de comme def nañu lii. xalé kon xamatuñu ma ci ñom dara ñooñu de kon dogoon nak ñom adi naga ak ndagam ñoo àttan def li kon bet nañu ma lo foogewu ma leen won nonu de man de comme def nañu li xalé kon xamatuñu ma ci ñom dara ñooñu de kon dogoon nak ñom ñoom àddina ak ndagam ñoo àttan def li kon bet nañu ma lo mën nañu gën a ñi ma wax kenn ku dul yow mi seen nijaay man na na tak setuma benn or luñu am man buñ ko yemal won ci man duma nakari parce que ñom xëj nañ ci man mënuñu def sama alal lu ko tax mais mbedd mi mbedd mi ni fi seen yaay meloon ak man mii tante li ma fi mel te mënuma daagu fenn yem ci ay il faut mu metti sa xol seen pas sax mu yëg ko ci jàmm rek noo ngi si jàmm noo ngi si jàmm noo ngi si jàmm soo neex na de moom soo mi a ngi toog hum? nga ñu taajal fi nekk la a ba xam kese day na waar de lu ma ko defaloon rek dama ko amul yéen sama chéri waaw ma ne di jaay pet ba ci cinéma waaw loolu la yow laay aji daanu rek aji daanu joo metti na ci yow waaye ku la nax ku la gëj a gis rek gëj a xam loolu bokkat rek da lay def ñii da la fi nekk ah, baax na nag neex na ma nag jigéen ju baax la wax dëgg yàlla yem na sama loxo dematul fenn moom daal nii rek bu ma añee ba pare mu defal ma soow su ma naanee soow ba pare mu xam ne bëgg naa nelaw mu sànni sa as cuuraay ma daal di jàpp ah, waaw loolu samedi ngoon nag daal laa bëgg def ngoon na lu riche nag waaw waaye yow nekkoo ci biti nekkoo ci gannaaw yaa ngi ci digg bi ndax sama diggante ak yow xam nga ne dangay waar moom te vraiment tamit euh, soxla naa la fa trop nag waaw bëgg naa ku geestu aj la parce que lii dafa yàgg démb la sa njëkkee moom laa doon wujjeel ba yàlla sunu borom def ci la ko neex te yàqu leen ci dara bàyyi maag lépp ak xale yéeg lépp kon loolu nekk na loo xam ne feddali na

waaye jërëjëf waay. waaw kay kontaan naa man maa ngi ñëw. waaye yàlla baax na yàlla baax na sedd na waaye dégg naa li nga ma wax ñaanal leen dégg nga. dégg naa li nga ma wax. xale yi ñaanal leen boo dogoog ñoom day doy waar day leen ñaanal rek daal. ah xale yi kat comme loolu la ñuy def moom dogoog ñoom jot na. ko de maa ngi ñëw dem na parce que maa ngi nekk ci programme bi. waaw kay waaw yooyu. waaw waaw wala ñëw jaar fële. jërëjëf ci ñoom uh, Ami Dior na. waaw waaw ak Mati Seck pour ñu ah, waaw waaw waaw kay merci beaucoup waay. waaw kay jërëjëf jërëjëf hmm, honest, so deliberate, so determined. Uh, um, you you waaw. mën naa sama feebar bi wóolatuma sama sax. Eh, yow nag it ba bàyyi loolu loolu bu ko sax jéem yow bu soobee yàlla yonent bi li ngay wax ak lee ça fait deux feebar ak leneen bokkul sax adama ko nit feebar na ba ñëpp si ko di ko yuuxoo mu jox doxi yow bu neexee yàlla yonent bi da ngay doxi soxla jot ci ngay def bàyyi loolu. sama doom yi adama ndax kat kat jàpp xamul. suba kenn moomu sa bopp ma feebar bi sonal na ma ma lay xale yi yar naa leen yar bu baax te su ma sañoon ñu continuer mel noonu man daal looloo tax ma woo la. na sa xol set bu neexee yàlla ak yonent bi da ngay wér pelak di doxi say soxla di wax ak say doom xale yi nag dénk nga ma leen waaye xale yi yàlla leen yaral boppam te ku yàlla yaral boppam bu soobee yàlla ak yonent bi doo am benn jafe xale yar na yar nga leen si lislaamam ci ci si njubak eh, japp seen jàmbur du ñu dem fen yalla leen jaral bopam bu neex yalla jona dara do am lu la na naqari man nak comme waxe ko dina danaa def sama kër lay kat mais xale yi kay bu xalat loolu rek laay xalaat waa nijaay la dara won laaj man dal lima ma aji daa wax fi legi ni ci xale yi man mënuma ko comprendre xale yi yar bi ñu leen yar sikat, ci kër ci si ci ngor ci té sen dam, té sen tank duñu dem duñu dox duñu wax aji daana tok fi ni ma awa tiagal ak da fay agresser non li mënu mako gëm li bu fekké ni am dina ma jaxal trop trop trop trop nijaay gis nga waxu jigéen dañ ci man daal loolu laa am ngeen pare seen bëgg bàyyi ma fi. wóor na yàlla yàlla xam na ni yëguma ci dara. yëguma ko. mu nekkee surprise ci yow noonu la nekkee surprise ci man dalaa bett bett ma xanaa fànta kay. moo rey mbéte te fanta lii mu def suma ko yëgoon dama oh. naan ko waaw defal ndax depuis keroog ma la dàkkee suñu kër toroxal la dip boobu ba tey damaa bëggoon ñu waat pour ma baal la ak ndax li ma defoon lu woon daraa taxoon ma di ko parce que bëggoon naa ci yow loo xamante nii am moom loolu moo taxoon ma di mais fa ma newoon démb ak bërki démb maa nga fa ba tey bu yokkuwul dara wàññeekuwul bu yokkuwul dara wàññeekuwul Ada lekkatuma naanatuma nekkatuma mu sonal ma sama ma torop loolu amul problème ba ma si jógee laa ko fàtte waaye dinaa Minang herif öyle. waaye nag la ma la waxoon keroog ba tey moo nekk fas yéene bokk ak yow lépp loo xamanteni da dalaa naqari bureau bi sax ya duma fi ma xam nah, ya. ndax yow bëgg naa la torop te yàlla rek nag tax amen mosuma def doomu aadama lu ko metti rawatina jigéen 二百六。 ca dëgg dëgg dëgg yaa rey pexe fànt waaye de li ngay rey pexe lépp tey nga musa def loo xam te ni lu ma neex la am kontaan romb naa foofu na sama affaire ndax romb la bi nga jëndoon sant noppit diis laa ciy jënd boole la ceeb boobu jox la ngay wax rek maa la wax bii kon lépp baax na tout est ok danga dañuy benn fan doon de danga may xaar kay ma wàcc lii moom du ma ko liggéeyaale. kon nga wàcc. loolu lay def. fii tu es ma sœur donc dina ma pare voilà c'est li ma ci jublu mooy pour ñuy waxtaan puis dama la bëgg a ubbi salon. man yow mii. salon salon ngay liggéey. kon xam nga beneen bi dama lay jëndal ay yére yoo xamante boo ko solee dox noo la may ma ko parce dama rafet. loolu lépp. te suba suba lay doon sama suba. suba beneen bi ci gis nga ceenu or doo duma la jëndal ceeb sax ay jaarul la jëndal ndax booy nga quoi modèle bi njëkk a génn maa ngi yaa koy njëkk a sol fii ci Sénégal ak feneen ak feneen. parce que damay cher. waaw parce que am naa ko dama commencé tegi mais tegi ku may commencé léegi xam nga lu mu bëgg fii nga géré ma pour ma mën a am këyit gàll. Eh! yow man de bu bon bi nañ jël këyit la ko teg sa yoon. dégg nga dégg nga li ma la wax tey dañ ma koy liggéeyal nga jox ma ko yow yaa xamoo sa bopp rek ma ñëw ma doon morom quoi booy da nga. yaay booy kaay booy réew ko def. ah booy ñool. waaye lan a may nelaw. yaay toogal rek yaay. ah booy na de toogal. na la. jàmm la moom jàmm la du jàmm ah, sa yaram. ma wax maa wax. maa waxal. mère. Hmm. kii yéene lu baax. te it bëggu ko. te yow xam naa ni ku ko soxla nga ku ko bëgg nga yow mën na ko bëgg am jeex. voilà beneen bi ci des mooy xam nga maire kii. nu mu sax maire awoon kan bu jógee màkk démb. waaw moom doon kanal démb. waaw kay. yaa booy boobu da gënu la da ngaa war a dem maa leen moom. loolu di ko wax ñaar yoon yow tam. te da ngay dem sax maa leen yóbbu ginnaaw suba. kan damay insister ginnaaw suba waaw. loolu gën daa temb rek. naa yaa ah waaw xanaa xewoon dafa feeñ. feeñ ah ma a ko fee maa mu am jala. ci topp. tee nga gi ma lay da ngay dox sax muy buubu nga ciy jël. lii. waaw yaa jomal la ko bi. andi. beneen bi ci des mooy. damaa bëgg nga jox ma këyit bu kër gi pour ma réaliser loolu lépp yaa booy. nga bëgg ma fee changer ci tàng tàng bi soppi fi sama doom. tolyewaat nu ci kaw kayitu kër gi yow say wax kat rëy na kat yow kayitu kër gi moo tax ngay mbet mbebi nii hii ay man ndax damay bëgg a waaru. c'est que mère du sama kayitu kër ma jox la nga jaay sama kër. danga ngaa comprendre du jaay mère. c'est que da nga bi a. maa ngi nga amee. sama tubaab bi donc. projet yoy mu wax quoi foog mo am ay kayitu kër yu ñu ko jox bam présenter ko ñu soog ko jox xaliss xaalis. mom Alain bo demee nga né Alain. Ah. sama yaay néna na. kayitu kër yooyu mu sélection sama bos mu ci bok man sama kayitu kër du tagga ci loxo xalé sama kër gi lima ci nam may ma eggal sama projet mo gën nga may laaj sama kayitu kër. yow kër gi ma ci ñak di ci duggal di ko def ni ma ko def bu mu melni tubarkal ma sha allah yeen iya ñaar ñi la man suma dé ñaar rek kamay doon ka may doon. xam nga lool bu baax. yow taw ak mom caab ma di la yëgal ne kayitu kër gi sa bàyyi mi ko ñàkk ba mu mel nii sax bëggatuma koo tëg bët moom su ma sañoon day dee. ma ne fattaas lay def dee. bu dee ma doole ci beneen kër ci kaw tabax ko yokk ko ba ca kaw. defaraat ko ba mu gën a jekk téye caabi sama loxo denc sama kayitu kër làngale sama digg kër balaa muy neex nag ñaar ñi jinne yi ma fi bàyyi man xaw ma ay seex lañu xaw ma kumpul loolu mooy li jënd. kii rek laa bañ. noonu nga war a génn la yaa booy. nit ki dañ maa béy nga lox de. Ah. kii ma journée. def ko tey jungoon bu baax la fi jëlee seen ndey du leen hmm. loolu laay ñaan yàlla waaye du kayitu kër yu ma yëkkati di ko jox yambar mu mel ni yow bu ma wooti yoon. yàlla eh, téléphone eh, non bu ma ko woowee. waaw téléphone baa ngi waaw sa téléphone baa ngi ko baa ngi ak dégg nga. Ah. waaw bu ma ko woowee ci de. mais nag soo mën naa ko trop seere da nga comprendre. xamal xas. bàyyil kayitu kër gi. maa la ay projet gën na ko yaatu la dàq laa liggéey. bàyyi ma ba ma li may def. wa nag nga joxon mako moy do doon arrangement bi maa ko bañ. c'est que yaa bëgg nag danga nangu dégg mais gis nga ganum mbokk boko amé da te ko ci taatu ndal ya bo gan gi dafay dess man ak yow na la xamal ñaari bëriwul quoi yow bëggoo lu baax bëggoo loo sa bëggoo lu baax yéen a woo sama yàlla lu baax. comme man bëggoo may amal kër gi gënal kër gi amal ba la nakari da bala ka tegal bu dee këyitu kër gi rek do ko jot ñàkk waaj dama booy du ma sax morom de ngay sax lu may bañ a tudd nii si yu dof yooyu naa koo gis booy bi ku bon la quoi dafa bon te kër gi kenn mënu ko bëgg a bon comme ça te nekk maa ngi fi doog déedéet kay. Ah, a rajo bi. waay tooj waay. wax rajo pareegu ma jël sa jaar bi kasu naa la bëgguma na lay wax loolu. ah mais dafa am da nga koy wane. waay ci la nekk. lépp jàmm la. waaw lépp jàmm. alhamdulilah. Enam jam. Tidak maa ngi sant bu wér tey moom suñu Gak ada gis pelangi. Tanya def <laughs> Yang baik udah. Saya mer rek Ya mau. Karena ko yang saa nga xooy yow moom xam lo yaa Lo imposé nit ñi nga Yang wax xaay bul wax loolu waaye tam non ci loolu nga naan sama saya. Jangan bu dugg Sai per lì. Olha, yow daal da nga da def sa bopp fekk jour ma ñaare ak sécurité def yoo xam dara damay sant di la gërëm ci lii rek neex na trop ci xol waaye nag mën naa ni dina am lu ndaw rek loo xam te ndam la koy wax avant nga koy def boo ma tàggoon doo dem ba koy jënd ndax ci gàttal rek la bëgg lu ndaw ndax tey jii boo xoolee ci benn jiin bi ci gën a boo ko jëloon tey ci ibbi sa mbaxal doo fa dugul du am fenn foo xam te ni a fàtte ndax fees ak yére sa mbaxal boo ko ibbi ci kaw ba suuf lépp ay yére yaa may fekk mm-hmm. yàlla teraanga kenn du la ma sañoon lii xaalis nan laa koy delloo lu ma leer ba leen tey boo ko doon delloo ah sam xel mu ñaaw ñu ko joxaat xaalis mais nga dem jël ko comme ay yëre jigéen pour sa bopp nga gën a sant sax su ko defee nga gën ci koñ bi dox man ma gën a mën a firi su ko defee ñu ah, xam nga ma gën a dox daal gën a ko <laughs> loolu daal laa gën a gis. xam nga aadama say mbir def maa li <laughs> ci man nag. yow daal mën ngeen nii nga ko bëgg a jàppoo sama digganteeg yow. non bu ma xamoon bu la xamoon xam nga li ma maa ko waroon dëgg yàlla kontaan naa trop man daal xamatuma ci yow dara. man daal affaire dépassé yow moom xamatuma ci yow dara. xamatuma ci yow dara. mais nag am na lu ndaw lu bëgg a wax. rafet na trop ñu toog ci biir néeg bi waaye bu ma sañoon ma fi ñu toog ci biir bi. yaa comprendre nga présenté ma say parents ma gën a xamante ak ñoom sax boobaa laay gën a am lu ma neex sax te dinaa xamante ak fam bi daal nga bàyyi ci xel leen. dëgg la aada waaye <laughs> Pape ak ngi ci saal bi maa ngi ñu toog fii ci lañ gën a mën a waxtaan pour man. waaw ah, loolu moom am na bëgg xamante ak fam moo tax ma xëy. Hmm. ma sañoon daal nga ko noonu nga ko hmm. ah, noonu. <laughs> sama cousin bi. daf fi war a ñëw après demain. ah ki nga doon expliqué ah ok kañ la fi ñëw. après demain. après demain. waaw daf ma woo téléphone. wax ni dina fi ñëw. te yéen ñaar da ngeen déggante rek te mosoo leen a gisante. bu fi ñëwee ça fait l'occasion ngeen gisante waat. moom benn problème. buy ñëw buy ñëw nag dama bëgg nga sañse. te génn fu nooy ndax moom xam naa ko jaay taal fu laa bëgg nga génn dafa baax. noonu laa koy defee. incha allah muy moom jarul sax may wax. dañ mhm. bàyyi suba rek incha allah. ok maa ngi bàyyi nag xam nga ba suba daa am nga dàq hmm. moom ban heure la fi ñëw sax. ngoon maa bi. ngoon ay à partir de apa tidak disetel hmm. hmm. coba kurang maksud nak ini terus ada film lah macam Insyaallah aku Oke. Okay. Xoolal eh kalau yi lolo looloo am de eh ak Abdou yal ya ko amma assalamu eh Sanggup bu tedd bi na mën naa la waa noo def waa déedéet maa di seetaan Pape Diouf xam nga ne rek laa bëgg waaye bëgguma leneen nam naa la de na nga def Wa, sant rek alhamdulilah démb génnuma fenn maa ngi woon si kër gi waa xale yi xale yaa ngi fi de ñëppoon ci kër gi waaye ñu ngi ci jàmm xaalis bi ñëw na kay ñëw de wante des na déedéet yow tam déglu ma dee yii déet histoire bi moom mënu ma ko di xeex koo giseel defal ndaag ma wax la xanaa duma sa xarit yow tam fi ma nekk yaa ma fi teg waaw ku may laaj ku dul yow kontaan naa de waa d'accord waaw kon bàyyi ma wax danga ma yónnee waa beneen somme bu tuuti dafa am lu tuuti lu ma bëgg a régler waaw non non man maa la fàtte woon wax avant maa ngi jégalu jégal nga ma man yaay sama xarit yaay sama seexal xalifa waa xale yaa ngi fi de waaw waaw waaw ñu ngi ci biti kenn nekkul fii ci man man rek maa nekk ci bi yow tamit man de waaw man de maa fi nekk non non génn ñu kër gi du ñu génn ñoom du ñu dem fenn. kan seex yi ah ñu ngi fi ñu ngi fi ñoom dañoo tranquille xale yooyu dañ ma noppal du ñu def tëralu bon ñu ci kër gi baax rek waaw waaw dinaa leen nuyu waaw. waaw yónnee waat ma bi xam nga lii ñoom dama leen ciy jox xale yi ku nekk dama lay jox sa waaw merci guddi waaw ah, d'accord wooteel daw ko fenn waaw d'accord jërëjëf yaaram bi nekk ci jaama dégg nga naa nuyul ma Europe yëpp yëpp yëpp yëpp <laughs> nuyu naa leen daal <laughs> waa d'accord merci beaucoup yow loo naan nii. nekkoon na raw guddi. Eh, xam nga naa ko nekkoon na raw guddi yaa koy rawloo guddi xam nga duma la ko jox nga foog ne ma la ko jox téléphone. naa la ko jox téléphone nga yëy saytuñ. yow fi ne li nga nekk man rek maa la àttal. sëñ na na nan jéem a joxoo sa papa mu xam li nga nekk. waaye nag daa lu may indi tey. jubante ko ngir mën la mer. gis nga tey li ma añee mer. non ba mu juddoo ba léegi mer maa ngi soog a lekk lu mel noonu. ah waaye yow loo añee. mer lu riche rek. waaw oh, dama at ma toor allah fii ba suma duma lekkaat dara mer. waaw loo añee xanaa kii ñay la añee. lu neex rek mer romb na ñay dem. waaw. lo rek nga bëgg xam ya koy. ah waaw waaw man yaay sama xarit. lo nga loo añee li ma neex la añee. li la li ma neex la yow ku añewul lu ko neex. waaye yow xam waay yow. yow da ngaa ñàkk fayda ah. et bu ma lo fayda ah bàyyi su ma toogee di wax samay wax nga di ma dégg mi di ma dugal ci gaan yoo xam ne xaw ma lan la na mujj tey ah soo mandetee jëmal ak moom ca xaj. waaye yow ya sof waay yow. la ñàkk fay la lii laa fi gën a bañ. Adama Adama Awa ana kii jëlu may téléphone heure li may nekk duma ko duma ko duma ko def ana Awa. décroché ma ay téléphone ku ma woon mooy sama portable bii et kaay yow. yaa yow looy def mënuma laa jot. maa la woo kay foo toog ma jege de e topp si nii Ousseul hmm, fii man maa fi toog Ousseul sama place. commencé na bu demal wax na dëgg. Ah, may rey ma yéen ah ki mel ni ku yore nen. xam nga ñeme wax. eh yow déglu leen ma. maa leen woo li ma leen di doyee. ane Adama Adama yaa ngi may dégg. boo ma déggee nga uyu ma xam nga lu ma leen di doy mooy xam ngeen ne samdi li ci des bariwul te xam ngeen ne samedi sama xewaare bi samedi la bëgg leen a xamal leen yéen ñaan ñi yow xam nga lu ma bëgg looy sant yàlla man ngay sant la yàlla wala sa bopp ngay sant la yàlla. dégg nga mu lay waar la alhamdulilah te xamal na Oustaz Seck ak Maodo Sylla ñëpp a ñëw. man waaye du yow lala goo ci sant yàlla yow yaa ci perong ba tey sa dara nooyagut ma ne li ma ñor ba ñor ma mooy lii may wax yow laa ne. samedi 8h du matin na nga génn kër gi 6h yaay 8h la wax ci suba bu fekkee 7h sax mën na nek sax mu gënal yow génnal kër gi évacé wul té bala nga ñëw ci kër gi na 1h jot 6h du matin tëjal sa gémmeñ bala nga ñëw ci kër gi na 1h jot di maté xam fo daan dem yow mu so tok di fa nga daan dem ngay dem yow gu da ngay wënd ak wënd nga rek wënd nga rek nga dem fa nga daan dem mais dal may ma kër gi bëgguma kenn kuy ñëw ci sama xewaare bii di daje yow ci biir kër gi ngay bubatu mel na tayukaay bu mu am yow man rek maa la supporté foofu laa yem dama ci dolli yow eh yow laay wax yaw lijjantil naa la ba pare sa bureau pantre bi def bagage yi bale naa ko mu set ratt laa lay tëj damm ko ci yaay bu ko rocc tëjee sa gémmiñ ba ma pare booyee boo wutaale pot boo saw wala boo bëggee naan loo naan yorelu ma la lekk ci journée bi wëgguma la xontuma la damaa ay gan di sa tank bu ma gé bëgguma benn gan daña sewew tank wi ci ëtt bi fi óol bi mayuma la ko bul duggu bul génn nga ne da nga faté góor kenn ko tëj dangaa fàtte ne <laughs> na góor kenn du ko tëj ana sa wax boko bokk mu eh ma wax lolé ko ya da ngay wax sa muy wax man xamé na gor ak jam xamé na dem ak no xoot ma wax lo mu naa góor kenn du ko tej ana gor sa ki moy gor si yeen kon da ngeen a ngay ngeen ah wax ju yakula bu mu amaat samay wax baatu ko ne du ci tege jóg leen sax jóg leen ngeen di mel ni euh, pomme rouge jooju. yaa ngi koy bokk leen dërëm. samedi ma tey tey tey kii ma tëj ko yow nga dem ki ma ñii xale bi dafa wallamiku. yaa ngi koy wallamiku tëjal yow laay waxal yow. xam nga lan laa bëgg yow yow. xam nga lan laa bëgg. ñu waxtaan ñee dem nañ maa yow fi ne. daaw xam nga lan laa bëgg nga génn abal ma kër gi. man yaa bëgg waaw. dinaa non non dawaare bi sa labar labar ji bëgguma samay naw la fekk la fi naan doomi Adja daara ju du xeppi day naanam day logi pion. dinaa la may fukki jur yow kii mandité mi kan lay kan lay toogal. danañ rus ma xamal la benn affaire mère du ma laal fukki junni de. doo laal fukki junni dem eh, fooyee jikko. da nga koy doublé ak ci leneen jox ma ko. war naa teg dund dinaa may 60 000. yow xëyee rek génn kër gi. Ah, fu sa copain nekk na dem fa. lekkal fukki junne ak ñaar ci journée ba mu jeex tàkk sa tànk ne bu mu jëm ci kër gi damay xewaare bu ma teg gàcce ni ma toll la. bu leen xool ci yéen ne maa leen ma toll la mais fi ni ma ma egg may leen ma. yaa man sax ma ma fi ma egg sama yéene. toog ci kër toog ci kër gi moom la arrangé baal ma toog rek mel. déedéet baal ma la fukki junne ñaar nga dem lii kuñ ko wax xaraamu neex ñii dama leen génn ci biti kii dama koy tëj ci nekk kii na dem seet fu mu xam dinaa la may 60 000 nga dem faw yi su ma làngee ba làng laayee samay basan bu rouler ko nga ñew Pape Diouf fa fii ñëw te day and ak ñu am personnalité damaa invité Drian kii yépp dama lay xaar jël couloir bi nga jox ma ko ma soog a dem. tay waaw légui léegi ci kanam su génné nga fekk ma jox couloir bi jox ma ko. dama dem rek dama xaar soxla dama ak yow. wayu doy na demal ma ngi ñew moko la ra a nak mo ngi fi ba moko ko yàq. Ya? waaw 60 mille dinaa la ko jox. waaw wuy ma lo bëgg xam nga yow li nga bëgg naa ko def. loo bëgg loo bëgg sal. yaa mooy li ma tissu bi nga ma jëndaloon. tissu man jëndal naa la tissu ba pare mètre quarante mille. <laughs> jëndal naa la ko yóbbul naa la ko ci Ndey Jeng mu war la koo mën a ñawal wala basindir nga bëgg mu ñawal la naa yóbbu ci basindir parce que xam naa moo ñawal xale yi. légui euh, ami jon day jaay ay dàll sa tànk dafa ndaw jama 39 ay li tel na reuy de waaye dina ñi ni dal yi nga tan bu la ci neex nga sol or boko tak takku tak sa cercle yi di nga ko takk ñu na doomu ajaa nga kii bi lu lu tak li hein sa ya yaay diriyanke la du petit yanke de <laughs> ma xam lolu ba samedi samedi la wa koñ bi de xam man may kan rek eh, kontaan naa war na yàlla kontaan naa amul problème waa demal maa Ma, dem ega sama Sebab apa nuyu na maa koy fay. mat na lijjanti naa la ma war a lijjanti ba mu jeex kii ci pantere kii abal ma dem ca kuti kii yëg màndi seet fu mu aw ma des sama caat nii ñu raxas kër gi kaw ba suuf diyaanke yi ñëw ndaanaane ñëw di ma woy rek may noobu la rek di maye li ma yor lii man sa fi la ah, waaw ah, ah, xam nga ko waaye ni nga nekkee dafa ñaaw sax ni nga nekkee sama yaay moo la ci bàyyi sama yaay moo la fal man na ku ñu xaar bu ma bëgg di toog ci wet gi ma ne la bu la méttee nga fanaan ci kaboot bi wala nga fanaan ci armoire ba xam ku koy yëg man ma laa bëgg a ma asalaamaaleykum maaleykum salaam cousine na mun naa la dégg nga waaw li muy def nii yow. li moom am na fi. laaj nga daal di génn yow man ma yëgul tàngaay. kii kii moom mu ngi ci xase mi. waaye nam naa la. waaw mais maa ngi nii. ci loo ne. sant rek. ana waa réew ma. ñëpp a nga ko. mais réew ma neex na de. ñi ko wax bëri na de. non neex na non looloo am sax. dafa fee. looloo am sax. <laughs> neex na moom. sinon. ça va naka mu. ana mu. mooy yow. ba ma tudd léegi mu fekk la. ah. léegi mu fekk la. ah yàgg na de. man pour man fi laa fay fekk sax. bi nga wootee rek ci laa ko xamal ne ko da nga fi ñëw. loolu dina ñëw. lu bees la. ci loolu. mbaa moom mu ngi jubal. ah. mbaa mbaa mbaa mbaa du jàmbar nga ma ñaari jàmbar yooyu noonu. man du ma xam yow. damay bañ nag mu ñëw ma mu ñëw ma koy fomp loolu taabal. ah mën naa nekk rek entre. maaleykum salaam. waaw ku baax. ça va naka mu. ça va. ah yaa Adam. nu mu demee gars. lu bees. naka affaire yi. taxawal. lu bees. naka mbir yi. ci loolu. naka Jolof. waaw. yéeg wàcc. mbaa mu ngi neex. mu ngi tànn daal. waaw mais sant rek. Ada kii moo teelu. ah kon kii nga ma doon wax. naka mu gee. ça va ku ne di ma bëgg a rey Edu Ada yéen a ngi noonu la. ah kii mooy Ada. waaw man la def benn naka mu. ça va maa ngi jàmm. waaw ñu nga sens parce que man yambar sax nga la coof ba mu ab yambar non dama koy dama koy dama koy raxasloo sama oto bi si coof maa ngi jàmm. ça va ah kii sama xarit la de. sama cousine la waaye sama xarit la damaa bëgg nga jàppale ko ah lay moom trois magasins lay wax fii tubaab bi. ah ah mais dara xéewal. ah boo ko mënee bàyyi foofu noonu nga bàyyi koo koo bàyyi trois magasin yi ah wala bu la neexee nga inventaire lépp noo ñëw dëkk ba parce que kaaw noo neex na trop <laughs> ah xanaa gisoo ko ni te xoolal boo ci taxawee ma jàppale la ci incha allah bi ma toogee fii Sénégal damaa déggoon grand frère yi naan kaaw neexul neexul neexul sëppul nga xool sama oto bi maa ngi ñetti oto ñor naa ay kër yu bari non jéemal def lu la jéemal def lu ne pour ñëw dëkk ba. ñëwal da nga am muunit. di leen ñëw billaahi da nga am muunit. Ah, kii nag sama cousine la damaa bëgg nga jàpp ci bu baax. cousine. waaw aw ma toogee. non baa ma ñëw daw parce que xam nga rek. Sénégal yéen xam nga pour jot ci xaalis sax foog nga rang ah, mais loolu dafa metti mais moom ngaa toog ba ci kanam non baa ma ñëw daw eh, mais maire bi nag bu kii nee xam nga rek. non parce que xam nga moom maire dañoo bëgg xaalis. dama xam nga rek. mais ci oh, yow gis nga ni nga mel aada li nga sol dara baax aada yow ma wax la lu leer boo fi ñëw sañ nga war a def lu neex ñëw nga génn fii yow nee naa la sama cousin daf fii ñëw sañseel ma sañseel waaye sañseel nga ñëw sol sa lii nga xam te ne kenn xamu ko di ma wàcc ci kanam mën Edu mënatuma respecté sañseel nga sol sa lii raw damaa jàpp na nga fàttali la ba mu fi ñëw lépp lu doomu nit ku baax di gànnaayoo gànnaa naa ko xamaam fi bu naa ko ba mu doy bu dee jikko ju baax ëndaale naa ko ba mu doy kon boo fi bëggee taxoon naa ma sa lii man damaa jàpp ni danga danga fàttali wante tam damaa bëgg nga jël sa xel bi yóbbaat ku ci dem sama li nga ma xoolee woon ba bëgg ma tey

a coono yi mbaa yaa ngi ci jàmm naka yitte yi sant rek mais gars bañ bañ gàtt bii dafa mool way sabar gi de maa ngi ko yàttaloo fële sa def ci gars yi ah. waaw fa la jëm lu xew tey waaw maanaam tey dama am xawaare bu mag bu ma war a tëggal maire Adja xam nga ko mooy maire bi nekk ci koñ bi di faj bu mu gàcce yi ban maire may faj bu gàcce maire Adja laa war a ah, tëggal tey yër ma ne oui ma grand goowal may kii wax ni mau jalan. bi moom tey dana neex ay ñoom Pape Diouf dama bëgg a àgg kër ga rek dem ca watkat ba watu ba ba mu baax sañsee ñëw fas yéene toog rek tëgg xawaare bi kër ga toj man ma préparé sama 37 bu moo ñëw tas xawaare grand bu ma yàqal sama teranga barki maam lu ko xooñ ñu ma yaakaar dama koy tas kon baax na bañ a àgg foofu eh dama koy tas c'est moi le bouc dama koy tas dungu la quoi mu sabaram bi xool sabar bi sax moo neexul dóor naa ko mais xoolal ting lay de sabar dëgg na nga koy dóor mu naan togara na ko togara na ko tax dama koy tas de da ngeen pare yéen ñëpp dama koy tas seen ngeen maire yi di solo xoolal ay ñoom bu sa taal naa ne ku solo ma tas ko